te mën no wañi te du len wañ du len yakal dara hmm. fan lañu mujj ci lolu mom lañu wara xam corona ñi juggé makka ñi nan no nganalé takkaat len maski. docteur Bousso daal ne def len dank yéen ngi ay créer problème fo xamné ne warut ko fa am def len dank and ci dal France ñom ñoo takkal général Kandé légion d'honneur Abraya dal lañ ko takkal ak ciowli fi lolu jur yépp mom lañ tan dal takal ko ko amna ci nak ñu ya jang ne dañ ci jublu ay provocation ak Emmanuel Macron waaw euh, wacc loolu ñew ci Sénégal Ousmane Sonko député APR Benno bok yaakar yang koy xaar assemblée nationale ci li wax déclaration de politique générale way président Bassirou Diomaye Diakhar Fay Amna sain sañ-sañu 31 juillet biñu jëm mu tas assemblée nationale bi ñu demat def ay élection législative loolu ndax dañ ca yegg du ci mënti am wannent da la ngi ci kanamam président Macky Sall ngi soññaat ay gaayam ngir ñu soñu état bi fi nek ngir ñu jox ndaw ñi ak jigen ñi liggéey waaw euh fofu mom amna amna amna bien point Amadou bayit mu ngay yolé jenn way ci liberté kat mo sacc magam ju handicapé jaay jai puus wa dem jëndé ko sangara prix yiñ fi tegoon ci walu mathématique waa da naka ñoo jël lepp suñu wa dëkk dañu xarañ démb nag damaa jaawale dat yi suba